Lac Rose Ngop Pam Doy. waaw naa la. Pam Doy Coense ngi ñëw de. ah Coense ngi ñëw dal seen kaw de. Ah, day xaar. day xaar. ak Serigne Sall day xaar de. ah lu tax muy xaar. non day ah. koy teg ci siège bu toog xaar. dañ koy sa booy lu ma. mu ne. nee na ngay day xaar. Ah, yàlla na yàlla na demee noonu. waaw mais nañ la de. maa leen raw sa combat ak Moussa Ndoye yàgg na. waaw na moom. ah. Mhm. depuis boobu lak si lu mu ne. ah ñoo ngi nii rek de ñoo ngi nii de ñoo ngi ci kawam bu baax. Ah. waaw lu tax nga jël avance lak euh, Quench. <laughs> non loolu moom père nga koy laaj. non mais yow laa koy laaj. <laughs> man man mii maa ko jël. lu tax yaa ko jël lu ah, bëgg daan rek nag. bëgg daan ah moo tax ah, bëgg daan bëgg daanaat. bëgg daanaat ah moo tax ma jël. la nga promoteur bi mook Eliman mak sama da ngay tey jaar baax da ngay yëngu ñu ngi jaar et pas jaar lu bari sa da ngay tey que dañ koy Kuen na nga def Quench ngoog ngi hey le prophète de barni moom le prophète de barni bu bëree rek arène nationale le retour de Quench waa Bargny namm nañ ko Quench ziar naa la. yàlla naa ziar. naka mu nag. sant yàlla tey loo añee. tey ceebu lebu bu saf saaf. lebu nu ya, mel dama si boo xasal tuuti. jën nga xam ne jarul ñu koy yarani si géej gi lay jógee rek ne tubaab biir déedéet kay. déggoo ma de. ngay lekk aw ji di jaar fu ne. allahu akbar mais loolu kañ laa si mos kañ nga ma si invité. heure boo paree ma invité. heure boo paree mais Lac Rose ngi ñëw de nee day ñëw dal sa kaw. non Lac Rose xorom si amatul dara. xorom bi amatul dara. non amatul xorom. ah amatul xorom quoi. ah amatul xorom. dëgg la. na koy tey. ñu ngi ziar. Eh, doomu ndey. jaajëf may lay ziar. Eliman Lo yaa am jàmm. Eh, ndeysaan Eliman Lo. Eh, sama xarit. grand laay. maa ngi lay ziar. waaw Max combat bi bu rëy la gaay waaj élément loolu tëgg loolu nag ngeen ko xalaatee. waaw xam nga combat bu neex léeg-léeg day làqu. du ne ci xelu amateur yi. mais xalaat naa bu nekkoon ci xelu promoteur yi. Ah. xëy na élément mii di gan du ci jot. dëgg la mais làmb moom ku nekk sa wërsëg rek lay. ku nekk sa wërsëg. ndax ñu ngi doon wax yeneen mais bi bii taxawee ñëpp xam nañ ne bii mooy combat bi. allah waaw eh, yi commencé na nag. waaw eh, làmb ji commencé na la bi des lébu mais Lac Rose Lac Rose Quench derby de lébu loolu nan nan la war a mel. non Lac Rose ak lébu daa des ab lébu ba mën la fee. mënul fee. ab lébu ba ay eh non da ngay tooñ waaye booy Lac mën na fee nag. kii lébu bu xamul lu ñuy nëppee jën boo du lébu dafa des. ah du lébu dafa des du original. ab lébu ba xamul ni ñaa nëppee ay jën. Ah. non ab lébu des na. des na ah, ah Lac lébu ba mën la xaaw. moom mm-hmm. ak lébu des na. des na <laughs> donc Quench euh, Sangok war a def retour am nag. waral barag mbëru faas am lebu piir am lebu eh, am lebu sans am lebu piir ah. ah, moom lebu lan la non man maa porté drapeau lebu yi loolu la yàlla dogal loolu la moom foo koy teg déggoo dama koy bëriloo bu mu bàyyi ma teg ko fa ma teg gaay rek bëriloo ko ba mu bàyyi fa ma jaaral ay ay ay moromam laa koy jaaral ah.